mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey aaya bi jëkk ci suuratu Ra'd mooy saar bi topp ci Yuusuf inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi alhamdulillah ñi ngi ni di dund xaaju ñaareel ca la nga xam ne mooy chahru ramadan ca mooy fukki fan ak juróom yu jëkk ya moom suñu borom yàlla wërsëgal nañu jàll nañ ko ñi ngi ñaan rek yàlla nañu ko yàlla nangul ca yombalal ñu li ci desit nangul ñu ko ñi ngi nekk ak téere borom bi gannaaw ba ñu jógee ci saar bu màgg boobu nga xam ne mooy suuratu yusuf alayhi salaatu wassalaam la ci nekk ci ay bind ñépp soxla woo ko jullit bi war a bari lu mu koy tari di ko settantal kon insha allah tey ñu ngi jël saar bi ci topp muy suuratu Ra'd
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون barakallahu fiikum bokk na lu ñuy fàttali it ne ñëw ñi fi rek pour tafsir téere bi yàlla bi waaye ngalawaay bokk na ci it Cheikh Ousmane day jàng ngeen déglu bu baax xool ngir ëllëgi ki si biir it ngeen mën a jànge noonu téere borom bi waxtaan bi ñu mu yegg ca ñoom pour mën a nekk ci kaw suufit ñuy jël seen temps jël téere bi yàlla bi di déglu njàngin bi gannaaw bi di ca topp ndax noonu la ko yàlla wàcce woon ci noppi jibril jibril wàccee ko noonu ci noppi suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wàccee ko noonu ci noppi sahabaam noonu lañ koy wàccee diggante nopp nopp ba bàyyi yàlla dogal mu yegsi ci ñun yàlla nañu yàlla wërsëgal ñu koy jàng naka borom bi jàngale woon jibril kon suñu borom saar bi bismillahi rahmaani rahim mi ngi noonu alif laam miim ra borom bi moo xam lan la namm ci loolu tilka ayatul kitaab mu ne loolu nag kaawtii fi téere bi la wallazi unzila ilayka min rabbika alxaq li nga xam ne moom la ñu wàcce ci yow mu bawoo ca sa boroom lool day mooy dëgg walakin aksara annaasi la yuminuun waaye xamal ne li ëpp ci nit ñi duñu gëm mukk allahu lazi rafaa alsamawaati sa boroom mooy kan mooy yàlla mi nga xam ne moo yëkkati asamaan yi bi xëyri amadin ci benn ci lu àndul ak benn piye yoo xam ne ñoo ko yenu tarawnaha ngeen di ko gisee noonu thumma stawa ala al arsh gannaaw ba mu dem daa di yemoo ci kaw arsham ba ay toogi ci kaw arsham ba loo xam ne day méngoog la nga xam ne mooy ay darajaam jalla wa ala wa saxara alchamsa walqamar mooy ki tàggat jant bi ak weer wi kullun yajri li ajalin musamma bépp ci ñoom ma ngay daw jëm ci dikk boo xam ne tudd nañ ko ba pare yudabbiru al amr mooy doxal mbir yépp di wëlbati mbir yépp yufassilu al ayat mooy teqale kawteef yépp mandarga yépp laallakum bi liqaa bi liqaai rabbikum tuuqinuun ngir daje ba ngeen di daje ak seen boroom ngeen am ci gëm gu wóor muy yaqin moom ba tey it wa huwa allazi madda al ard mooy ki sàllal suuf wa jaala fiha rawasiya def ci suuf boobee ay montagne wa anhaara def ci suuf yooyu ay dex wa min kulli samarat bépp façon meññet it jaala fiha zawjayn isnayn def na ca peer boo xam ne ñaari peer la muy góor ak jigéen yuxshi leyla nahaar ma ngay nekk di muuri guddi la nga xam ne mooy bëccëg muy guddi gi di ko muur inna fi zalika la ayatin li qawmi yatafakkaruun nekk na ci lii day ay kawtéef ñeel xeet boo xam ne dañuy doon ñuy xalaat mi ngi noonu mbokk suñu boroom mooy wax nu mu ko neexee ca mu commencé saar bi ak lu bari ci saari alquran ci ay lenn ci lettre arabe ñu koy tuddee xuruf al hijaiya fii mu indi ci ñeent alif laam miim ra ñu ngi noonu la gën a mucc rek ma ñu ne yàlla xam nu mu ci namm mufassiroon yi wax nañ ci lu bari am na ci ñaar yoo ci gën a dégagé wu mooy alquran jii ngeen ne Muhammad moo ko wax lettre arabe yaa ngi nii moom lay jëfandikoo wax ko yéen jël leen lettre yooyu ngeen indi lu mel ne alquran ak ñi nga xam ne dañoo jàpp ne suñu borom dafa indi waxin boo xam ne doomu aadama yi miinuñu ko woon ca arab li mu xamoon nit kuy wax waaye nit ko toog mu njëriñ mu daan toosin miim loolu moom fokk ñu déglu la kon c'était pour attirer attention nit ñi moo tax suñ borom daan wax yooyu kaaf ha ya ayn saad foo ko waxee ci arab dana jaaxle waa ki li muy wax lu mu doon bu ko defee mu déglu la la ca des waaye daan la gën a mucc ayib waaye allahu aalamu bi muraadi yàlla gën a xam lam ci nam lii di ci abrégé ay lettres dem nañ ba jamono dox nit ñi di ko jëfandikoo mi ngi noonu tey jii jàpp naa ni amul kenn ci yéen ko xamul lan mooy PDS amul kenn ku ci yéen ko xamul APR mi ngi noonu amul kenn ko xamul SGBS amul kenn ko xamul B6 yooyu yépp kon ay nit ñi ñu ngi commencé ñëw di wax ay mbir yoo xam ne foo ko waxee nit ñi xam la ngay bëgg a wax lu mu doon moo neen OUA boo doon ONU boo doon PAM PAM boo doon FAO yooyu yëpp da ngay gis ne tey foo ko wax nit ñi xam li ngay bëgg a wax lu mën a doon ala kulli xaal suñu borom mu ne kawteef yi téere baa ngi nii alquran aaya bu ne kawteef la kawteef bu jëkk day wane ne lii ci yàlla la jóge yàlla ku am la ndax booy wax wax ji ci yonenti yàlla bi it la wàcc muy kawtif bu yàlla wàcc ci moom di ak téere téere bi gën a màgg ba doomu aadama ma sa xam téere bi ëpp njëriñ di téere bi gën a yeyoo xam di téere bi gën a yeyoo jëfe ñu ngi noonu borom bi subhanahu wa taala mu ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñuy wàcce ci yow mu jóge ci sa boroom loolu rek ay dëgg mbokk alquran mooy dëgg leneen lu dëppook moom dëgg la lu wuuteeg moom neen la ñu ngi noonu suñ borom wax nañu ne wa ma za baad alxaqi illa dolol ndax am na gannaaw dëgg lu dul neen neen rek moo fa sax su ko defee nga la way àdduna lu mu dox dox ay nit xalaat ay yoon yu doxalin yoon yooyu yee taaru lool waaye bi nga ko xoolee mu safaanoo ak la alquran woote xamal ne la yàlla wax dong mooy dëgg la ñuy wax feneen loolu mooy neen borom bi nag mu ne yow yonent bi xamal ni li ëpp ci nit ñi moom yàlla dogal na duñu gëm laa yuminuun loolu it bu mu la nax ca akabari ñi muy nax mooy daje ba la fa daje ñu naan mat na deux millions mat na trois millions nit ñi di dalale seen xel lu mbooloo ma gën a bëri day wane ne lii dëgg la li nga noonu yoo xam ne bañ koy sos xëy na téeméer dafa daan nekk dem nañ léegi ba dana mat cent mille dem nañ ba léegi day mat un million ndax loolu tax na mu nekk dëgg abadan mbokk dëgg kenn du ko xamee ci mbooloo aksara naasi la yuminuun li ëpp ci nit ñi duñu gëm léegi nag borom bi wax na yonente bi sa boroom lazi unzila ilayka min rabbik ci sa boroom waa jii laaj dana laaj waaw kii boromam mooy kan boromam mooy kan mbokk boromam mooy allah allah mooy turu yàlla bi gën a màgg doonte ne suñu borom yàlla ay turam bëri na rasul sallallahu alayhi wasallam nee na am na ca juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ku ko wattu da nga tabbi aljanna am na yu bëri ci mbokk yi def ci yenn kaamil yi waaye yàlla kulli xaal ay turam bëri na tur ba ca gën a màgg di melokaanam mooy allah allah mooy al ilah ke nga xam ne mooy yow ñu jaamu ko allah boobu mooy kan allah moo yëkkati asamaan yi ñu tiim di juróom-ñaari asamaan yu yoo xam ne nee na amul benn pied boo xam ne téye na ko mufassiruna yi am ñoo xam ne dañuy jàng bi gayri amada mooy moo ko yëkkati ci lu amul pied taraw naha yéen a ngi gis asamaan boobu mi ngi noonu yàlla yëkkati na ko ci amul pied te loolu it bu ñu xoolee ci réalité scientifique loolu la ñuy gis mooy asamaan ak la ci nekk yépp jant baag weer yeeg biddiw yeeg yépp lu nekk yaa ngi daw ci say orbite ci ay xil yoo xam ni kenn mënu ko dugal ci bopp doomu aadama lan moo tax waddul suñu kaw mooy am na lu ñu tuddee aljazibiye muy attraction boo xam ne loolu la scientifique yi di wax moo tax ba lu nekk yaa ngi sa orbite di daw dara du wadd waaye moo ko attraction boobu kooku mooy suñu borom jalla wa ala kattanu yàlla mooy waladi yumsiku samawati an taqaa ala al ardi illa bi izni mooy ki nga xam ne moo téye asamaan yi ba asamaan yi du wadd lu dul ci digalam mu ne taraw naha yéen a koy gisa noonu am na it mu fassuru ni ñu koy firee bi xëyri amadin taronaha moo ko yëkkati ci ay pieds yu ngeen gisul kon asamaan am na ay pieds waaye dañ koo gisul waaye nag lu ëpp ci ñoom lañ ko firee mooy amul ay pieds ñi ngi noonu yàllaa ko téye rek ci kattanam gannaaw boobu suñu boroom summa stawa ala al arsh mbokk arsh bokk na lu ñu diine jàngal chrétiens yi xam ko juif yi xam ko avant l'islam suñu borom am na mbindaafan bu ñuy wax arsh arsh rahman yonent bi alayhi salaam mi ñu koy misaal mu ne asamaan yi juróom-ñaar te mbokk scientifique yi suñuy wax ci mbir asamaan dañuy dem ba dootuñu utiliser milliard bi ñu xam am na ay termes yeneen yu ñuy utiliser bokk na ci li ñu tuddee kilo par sec kilo par sec mooy un bu am 17 zéro xam ngeen milliard mooy un bu am 9 zéro mais kilo par sec mooy un bu am 17 zéro dañ naan planète tel wala star tel ah ba ba ba tel dañ naan lan am na nangami million de kilo par sec wala milliard de kilo par sec donc mbir la yoo xam ne doomu aadama mënul fexe ba dugal ko ci boppam bopp doomu aadama tuuti na ci loolu waaye loolu ñu yàlla woon ci asamaan ci ci asamaan yi rasul sallallahu alayhi wasallam nee na mboolem asamaan yi bu ñu ko jëloon ñu koy méngale ak kursi kursi mbindaafan la bu nekk ci suufu arsh nee na day mel ni yi mi jëloon sa be ab jaaro rek dem ba ci benn désert bu yaatu nga sànni fa jaaro ba nee na na jaaro bi riire ci désert bi noonu la asamaan yi juróom-ñaar di tuutee par rapport ak kursi mu ne nag gis nga noonu kursi ëppee asamaan ak juróom-ñaar arsh rahmaan it noonu la ëppee kursi ci boppam loolu mbokk kooku mooy arsh suñu borom nag ma nga dem ci kaw arsham ba istawa suñ ko waxoon ci mbindaafon dañ naan dafa toog donte ne yàlla nan lay tooge laa nadri xamuñu ko imaamu malik rahimahullah toog na ci jàkka ji tafsir ba yegg si ci aay bu mel ni benn waay jóg daal dina ko waaw yow mi yàlla yow malik waaw yàlla moom nu muy tooge ñu ne malik dafa ñaq ñaq lu yàgg gannaaw ba mu siggi doog koo tontu ne ko toog xam nañ ko mais nu yàllay toog loolu kenn xamu ko al isra maalum wal kayfiyatu majhul yàlla nu muy toog kenn xamu ko parce que yàlla dara daa mirul ne moom mu ne ko ca laaj bu mel nii day yaa ko jëkk a laaj mooy laaj ko bidaa la sahaaba yi mosuñu ko laaj yonent yi mosuñu ko laaj daa dina ndaw ñu nekkoon ci jàkka ji kii génne leen ma ko jàkka ñu génn ko sànni ko ci àll ba kon dañuy gëm ne yàlla nga ci kawaara shamba nu mu fa nekk nag xamuñu ko ñu moytu fitna bu rëy bu ñu dal dugg Sénégal mooy fitna waxdatul wujud waxdatul wujud mooy yàlla yàlla yi nga xam ne dañoo jàpp ne yàlla mooy lépp ñoom dañ leen yàllaa ngi fépp am nañ kilifa gu mag ci ñoom koy wax ci rajo yi ñu ñu ñu koy tagg mooy aalimul allaama ila axiri bu heure buy buy firi ba yegg si ci arsh daf naan arshullahi maxluqaat loolu la koy firi danaan arsh yàlla mooy ay mbindaa fanam yépp ndax pour ñoom yàllaa ngi fépp loolu kon dàq na amuk arsh waaye mbokk loolu waxi kéeféer la waxuñu nag ne yéeféer la waaye dañ ne wax yéeféer la wax arsh ni ma la ko waxee du du sax diine l'islam moo ko saxal diine yu jëkk yoonu sax dañu saxaloon mooy le trône du miséricorde ñëpp xamoon nañ yàlla am na arsh rahman kon yàlla ma nga ci kaw arsham ba nekkul ci kaw ay mbindaa fanam ay mbindaa fanam dara nekkul ci moom yàlla moomu allaaxiri lañ koy gis yàlla na yàlla boole ñu ci loolu lañ war a gëm istawa ala al arsh noonu mu nekk ci kaw arsham ba nag gisuñu ko waaye am na lum ñëwoon ci kattanam bokk na ci loolu asamaan yi ñuy téem moo am lenn lu koy mandargal mooy jant bi suñu borom moo ko tàggat mu am yoon yi muy daw 365 yoon yoo xam ne nii bés bu nekk mu am fu mu ca jaar yoon yooyu nga xam ne mooy déterminé di ñu indil noor di ñu indil nawet gannaaw ba mu ñu indilee guddi ak bëccëg alqamar mu tàggatal ñu jant bi mu nekk benn satellite di wër weer bi li mu tàggatal ñu weer bi mu nekk benn satellite di wër suuf si weer boobu mu wutal ko ñaar fukki wàccuwaay ak juróom-ñeent yoo xam ni da cay jaar ah ñu koy gis muy saw di di kawe mu am influence bu rëy ci géej gi am influence bu rëy ci sunu mbay mi ila axiri ba nga xam ne ne bokk ni li tax doomu aadama mën a dund ci kaw suuf mooy ñaar ñi ash-shams wal qamar ku nekk suñu borom fixé na la ci benn orbite mooy benn place boo xam ne su fa bu ñu fi nekkul woon àdduna tukki waxuma bu ñu fi nekkul woon waaye bu ñu nekkul woon fa leen yàlla teg rek àdduna tukki ñaar yooyu yëpp ñu ngi ci bu ñu nekkul woon fa leen yàlla teg rek àdduna tukki kon suñu borom moo ko tàggat mu ne nag jant baa ngi daw weer baa ngi daw ku nekk ci jëm digg boo xam ne tudd nañ ko ba pare naam tey dem nañ ba scientifique yi reconnaître ne li nga xam ne mooy asamaanu suuf ak li ci nekk am na fu mu yem moom la ñuy tuddee la fin du temps avec l'extension du ciel ndax danañ asamaan yi ni muy tàllaloo am na fu muy yem donte ne ñoom ci seeni gént dañ naan dans cinq milliards d'années mbokk loolu seeni wax rek la asamaanu suuf am nañ dig dig ba mooy lan dig ba yàlla tudd ba pare mooy kan ida shamsu kuwirat wa ida nujum kadarat wa ida aljibalu siyirat ida aljihaaru comme ni ngeen ko jàng ci alquran rek ab dig day ñëw suñu borom yàlla subhanahu wa taala sant benn malaaka bu ñuy wax israfil israfil ëf bu ëffee ordre bi suñu borom def ci kaw asamaan lépp jaxasoo lépp jaxasoo suñu borom lem yépp mi ngi noonu jalla wa ala borom boobu nag mu ne yudabbirul amr moom mooy doxal mbir yi may wëlbati mbir yi bu nawet ñëwee mooma bu noor ñëwee mooma bu seddee yàlla ko seddal bu tàngee yàlla ko tàngal bu ngelaw riddee ci ordre yàlla la bu tremblement de terre amee naka noonu bu taw wàccee naka noonu loolu mooy li la wër yow doomu aadama looloo tax loo ci gis ñaanal yiwam ñaan yàlla musal la ci ayam yonente bi alayhi salaam danaan def bu gisee ngelaw bi rijji mu ne yàlla ñu ngi lay ñaan yiwam ak yiw yi mu àndal ak yiw yi ñu ko yónnee di la ñaan nga musal ñu ci ayam ay bi mu àndal ak ay bi ñu ko yónnee bu xiinee bu ñuul mu ne ah yàlla yàlla na nga ko def la nga xamee ne nii mooy lu ñuy tawal bañ koo def lu ñuy mbugal mi ngi noonu sedd bu ñëwee ñaanal yàlla yiwu sedd bi ñaan yàlla musal ci ayam dafa tàng ñaanal yàlla mu mu may la yiwam ñaan yàlla mu mu mu mu musal la ci ayam ndax suñu borom laa yaxluqu shay'an batila lu mu def rek xikma la imma mu am ñu lor wala am ñu mu jëriñ waaye la chaq yàlla du def ci neen su ko defee yow da ngay ñaan lu yàlla dogal fekk ne la ca baax nga ñaan yàlla jagleel la ko waaye nag suñu borom boobu yu dabbirul amr ndax jaww ji rek lay lay wëlbati di indi guddi bëccëg noor ak nawet ak yooyu déedéet xatta yow sa wàllu bopp mbokk allah yu dabbirul amr yàlla moo la jël bind la ba mu ko soobee di la màggal na mu ko soobee moo lay dugal fa ko soob di la génne fa ko soob di la wërsëgal nu mu ko fooge di la feebaral bu ko neexee di la rey bis bu ko neexee yudabbirul amr loolee kenn mënu ci dara moom dang moo koy def loolu it nga la way booy ñaan bul ñaan lu dul yàlla moom booy sant bul sant lu dul yàlla moom wa ma bikum min ni'matin fa min allah lu nekk ci yow santal yàlla ndax yàlla moo ko tëralee noonu loo ñàkk mu ñun muñ gu rafet yàlla ko tëralee noonu loo yaakaar yaakaar ko ci yàlla ci yàlla dong lay jógee lu tax yu dabbirul amr moom rek mooy yu dabbirul amr waaye nag yu fassilul ayat mi ngi teqale ay aayaam aaya yi muy wàcc ci téeréem ak aaya yi muy bind ci jaww ji ñeel borom xel yi laallakum bi liqaai rabbikum tuuqinuun ngiree yéen ngeen am yaqin ci ne da ngeen dajeeg seen borom te mbokk julit tey ci kaw suuf man ngaa wax ne deux tiers yi dund ci kaw suuf gëmuñu àllaaxira am na xatta boo demoon occident ñi nga xam ne dañ naan ci diine la christianisme la nekk la ëpp ci ñoom léegi ay atte la gëmatuñu diine gëmatuñu àllaaxira am na waaye mbokk boo xoolee lii da ngay xam ne alaxira la rayba fiihi alaxira am am na chinois yi gëmuñu ko communiste yi gëmuñu ko mi ngi noonu lan lañ gëm mooy ñun ay par hasard lañu am mi ngi noonu suñu borom nag mën a leen bu ngeen gisee lii ngeen xam ne lii du hasard bu nekkoon sur place du hasard waxuma mi ngi wëlbatiku ci ay cycle yoo xam ne nii di recommencé wu te ku ne xam ne ne hasard du baamu ay hasard du am di amaat loolu mi ngi noonu ci seen raison loolu waroon na leen yóbbu ñu wéetal yàlla mi ngi noonu allah mu dul benn philosophe daje nag moromum philosophe am kii daa gëm kay weddi kii nga xam ne dafa weddi da ko waaw yéen yéen gëm naan ay day dékk dana am mu ne ko waaw dañ koo gëm ah waaw mu ne ko léegi yow gën a gëmoo loolu mu ne ko déedéet mu ne ko amee lu tax ñun ñuy dund ci kaw suuf lu tax àdduna am mu ne ko mais lii lépp par hasard la rek mu ne ko mais est-ce que àllaaxira it mënul am par hasard waa ji nag kott di ko xool ah maadaamat reconnaître nga ne ne li am ci jaww yëpp c'est par hasard mais kon koy ëllëg mën na amaat par hasard loolu mi ngi noonu waaye ala kulli xaal julit moom fi lillahi alhamdu dafay am yaqin ci daje gi muy daje ak boroomam te it loolu ngalawaay ngeen bàyyi ko xel laallakum bi liqaai rabbikum tuqinoon te yéen mooy man mi di wax ak yéen ak yéen ak kum mën a door gis dana mas a ñëw ñu génne ko ci bàmmeelam ay malaaka escorté ko ñu taxawal ko ci kanamu boroomam boroom boobu jugé ko su fa jógee ma nga jëm aljanna wala bu fa jógee ma nga jëm safara lii ku nekk ci ñun war na ko bàyyi xel suñu borom nag jox nañu ci benn yóbbal nee na fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada koo xam ne yàlla baaxe na la ba nga gëm ne gis dañ ma sa taxawal sama kanamu borom ah yàlla lu fay muccale suñu borom mu ne xoolal lu baax nga di ko jëf lan mooy lu baax mooy sunna ba yonent bi jàngale gannaaw ba it bul bokkaale ak sa borom dara ñaar yi ku ko indaale ci sa kanamu borom boo jógee ca taxawaay ba àjjana nga jëm yal na yàlla boole ñu ca suñu borom yàlla continué waat ca bokk na lu borom xam-xam yi wax téeréb yàlla bi li ci nekk ci ay aaya yu ñuy jàngal jaww ji moo ëpp aaya yi ñuy jàngal ibadat ibadat mooy julli yeeg koor yi ak yu demee noonu suñu borom mi ngi woon ak ñun kaw asamaan léegi nag mu ngi wàcce ak ñoom ci kaw suuf mu ne huwa lazi madda al ard moo ñu tàllalal suuf ñu man cee bay suñuy tool man cee samp suñuy étage defal ñu ci ay montagne montagne yooyu moo ko téye ba suuf ni muy dawe ak ñun suuf du tasaaroo ba suuf tremblement de terre yi ci am ci ay gox du dajale suuf bi yëpp ba defal ñu ci ay montagne defal ñu ci ay dex te dex yu bëri mi ngi jóge ci ay montagne yaa ngay dégg le fleuve Sénégal prend sa source ci montagne Fouta Jalon yéen xale yi jàng ngeen loolu kon montagne dafa ànd ak dex loolee kawti fi borom bi la jël wa ala mi ngi noonu suñu borom mu ne ndax nit ñi dañu xool montagne yi ni ma ko ni ma ko bindee borom boobu it subhanahu wa taala ne xool leen meññeent yi bépp façon meññeent tey jii scientifique yi ñaata façon meññeent lañ gis ci kaw suuf c'est des millions c'est des millions d'espèces borom bi nag mu ne boo ci gis ñaar la moo tax gaa yi hasard la tey du hasard amul benn meññeent boo gis dul ñaar la bu góor ak bu jigéen mi ngi noonu bépp ñaar la suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne gis nañu ne mooy jël guddi muur bëccëg te jii boo téléphoné woon léegi dëkk bu mel ne Arabie Saoudite ñu ne la ñu ngi suñ guddi boo demee woo waa Japon ñu ne la ñu ne suñu guddee ngi waaj a jiyee sax mi ngi noonu wala sax xëy na ñu ngi suñu subateel ndax nous avons 9 heures de temps ala kulli xaal mooy jël guddi di muur bëccëg léegi guddi ñëw muur suñu bëccëg loolu ci kattanam borom bi nag nee na sama jaam yi nga xam ne dañuy toog di xalaat ay kawteef mi ngi ci lii ngir ñu mën a doon ñoo xam ne dañuy gëm seen boroom wéetal seen boroom màggal seen boroom allahuma nag musiba bi ñu yàlla nattoo tey mooy li ëpp ci jaami yàlla yi xalaatuñu dañuy consommer rek dañuy consommer rek yaa nga ci liggéey ba soo jógee yaa nga ci télé ba soo jógee yaa nga ci portable ba amma toog di xalaat ci mbindaafanu borom bi jalla wa ala lu néew a néew ci jaam yi ñoo koy def yàlla na yàlla boole ñu ca dégg noonu
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صلوان وزرع ونخيل صلوان وغير صلوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد
fiikum suñu borom mu ni wa fil ardi qita'un mutajawirat moo la nekk na ci suuf day ay plaque mooy daggite suuf yoo xam ne nii dañoo sësaloo wa jannatu min a'nab ak ay jardin ci raisin wa zar'un akum mbay wa naxiilun sinwaan ak ay tàndarama yoo xam ne dañoo bokk benn dat wa xëyri sinwaan ak tàndarama yoo xam ne benn bokkul ak sa moroom dat muy tronc yusqa bi ma'in wahid ñoom ñëpp ñu ngi leen di nandale ci benn ndox wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukl doonte ne daan gëne la lenn ca ñoom ca la ca des ci ak meñ ci ci ci ca lekkin ba ay ca cafka ga inna fi zalika la ayatin li qawmin yaqilun nekk na ci li ay kawtéef ñeel xeet yi nga xam ne dañuy xellu wa in taajab su dee da ngay yéemu nag fa ajabun qawluhum ak yéene seen wax yi wax jooju ñu naan a ida kunna turaban ama ndax ñun buñ demee ba nekk suuf a inna la fi xalqin jadid ndax ñun daañu wëlbati ko nekk ci mbindun gu bees ulaika allazina kafaru bi rabbihim ñooñu day ñoo ñi nga xam ne ñooy weddi seen boroom wa ulaika al aghlalu fi anaqihim ñooñu day ñoo ñi nga xam ne lii di njoñ ya mooy chaîne ya ñuy njoñee seen loxo ya ci seen gannaaw loos ya fii anaqihim a nga seen loos ya wa ulaika asxaabu nnaar hum fiha xaalidun ñoom day ñoo ñooñu sawara te dañ fa sax ba faw mi ngi noonu bokk suñu boroom bi mu jógee asamaan wax nañu ne moo tàllal suuf samp ci montagne yi dawal dex yi génne meññeent yi bu ne mu def ko muy peer waaye suuf soosu it da ngay gis ay tool yu sësaloo ay suuf bee ma nga ñuul bee ma nga weex boo laajee mag ñi miin àll bi nga gis ay tool yoo xam ne dañuy sësaloo tool bii loo ci jimu normal tool bii dara mënu ci am comme naka borom bi wax rek wal baladu tayyib yaxruju nabatuhu bi izni rabbi waladi xabusa la yaxruju ila nakida loolu mi nga noonu bee dafa nekk ban bee nekk beeñ bee saf sa poqorom bee kaza wa kaza xita un mutajawira gannaaw ba suñu borom mu ne maa génne ay jardin ci raisin maa ko xoolul raisin ah ni ko yàlla subhanahu wa taala neexale wa zaro zaro mooy lépp luy jóg di taxaw rek dugub jàngeeg mokk mangaag lu mën a doon rek wa naxiil moo tàllal tàndarama yi ñuy dem dee mètre ci kaw sinwaar yoo xam ne da ngay gis ñaari tàndarma ñetti tàndarma bokk benn dàtt bu ñu saxee daal di teqalikoo nag garab gi jëm fii garab gi jëm fii wa xayru sinwaar ak tàndarma yoo xam ne benn benn lay doon rek suñu borom mu ne moo ne de yii yépp benn ndox rek moo koy ñoral gaa yi jardin baa ngi nii raisin jaa ngi ci tàndarma ji mboq ngi ci kaane ngi ci lu nekk ngi ci benn suuf benn ndox la yàlla wàcce génneem la nga xam ne mooy raisin yi mu tàllalu mu génne zar mu taxaw mu génne tàndaram mu jëm kaw ila axiri léegi benn ci moroomam bokkul ak la nga xam ne moom lay moom lay moom lay saf yéen ñëpp xam ngeen ne kaani ak ak raisin bokkul yéen ñëpp xam ngeen ne li nga xam ne mooy limon ak banaan bokkul yéen ñëpp ngeen xam ne mboolem yi fruit yi nekk ci kaw suuf amu ci benn fruit boo xam ne moom moromam ñoo bokk lu muy saf amul benn fruit waaye ci kaw teefu yàlla nga dem ci même fruit nga dem ci masalan mango gaa yi mango ñaata façon mango am laaj ko ci amee ni jamonoy mango kenn xamul ñaata façon mango am ñu ngi noonu tàndarma ñaata façon tàndarma moo am suñu borom yàlla di ko gënale bal loo xamee ni nii lu gën a yéeme ci ci gën a yéeme laa dalal ko mel ne ñoom Serigne Ndiaye mi xafisahullah da lay wa da ngay dem ci àll bi aw ne la ñoom seen dëkk sax am nañ ci benn daqaar boo xam ne côté bi féete penku boo ci daggee daqaar day saf sàpp ak sukkar côté bi féete sow daqaar boo ci dagg boobu xatt ci benn garab gi yaa ngi dégg ci benn garab gi loolu mbokk la mbir la boo xam ne bu yéeme la suñu borom ji def lu ko neex nu faddilu ba'daha ala ba'din fil ukul bu nekk rek yàlla gënale na nga koy lekke boo lekkee bi xam ne bokkul ak ba nga lekke bee loolu mbokk yàllaa ngi tontu par hasard ñi nga xam ne hasard la ñu gëm gaa yi bu doon hasard suuf bi benn suuf la ndox bi benn ndox la la fay meññ yépp a yem la fay meññ lépp ay bokk lu ñu saf waaye mbokkul kon am na keneen kuy organiser mooy kan ki njàngoon ci kaw yu dabbirul amr waaw suñu borom yu dabbirul amr mooy wëlbati mbir yi nu mu ko neexee loolu mi ngi noonu su ko defee nga gëm ni mbokk amul lenn luy xew ci kaw suuf misqala zarra lu dul suñu borom yàlla jalla wa ala mooy ka ci dugal loxoom moo tax mu ne kaw kii fi ngi ci ñel ñi xellu léegi nag ñu dellu siwaat borom bi nag ne yow yeneen bi mooy yiimu ak a yéeme seen wax ji mooy ñi naan ndax ñun bu ñu nekkee suuf daañu daañ dekkiwaat encore suñu dee ba nekk poussière jaxasoo suuf ndax daan dekkiwaat encore suñu borom mu ne ñii ñoo weddi seen borom weddi nañ seen borom ci suñu xoolee kàttanu yàlla gim ñi won ci jaww ji dañu xam ne yàlla mi lu mu digge mën na ko luy muy loolu muy benn ñaareel bi itamit yow doomu aadama foo jógee borom bi leen wa daraba lana masalan wa nasiya xalqa doomu aadama mi ngi dural misaal fekk nadr ibnu xaaris say say bu bon la moo dem ci armeel yeeg jël fa benn bopp nit boo xam ne ba mu dee kenn xamul mu ñëw ci kanam yonent bi dóor ko mu tasaaroo mu ne ko waaw muhammad man yuxyil izama wa hiya rami lii dem ba mën xoñoo ku ko mën a dekkalaat suñu borom nee na qul yuxyiha allazi anshaaha awwala marra neel ko koy dekkal mooy ko ko bindoon ca njëlbeen loolu it mi ngi noonu su ko defee mbokk doomu aadama tey boo naan su ma jaxasoo ak suuf ku may dekkal doomu aadama lan mooy sa cosaan suñu borom ba nit ñi xamagul da leen doon wax rek toqama niyu amma biñ demee ba mu ubbil ñu xam-xam tey scientifique yi dañuy xamal ni di ko te toqama niyu boobee mën na ëmb lu jege cent millions ci ay mbindaafan yoo xam ne bu ne mën na nekk doom ñu ay mbindaafan spécial am seen autonomie yii nekk x yi nekk y yoo xam ne ñooy mën a def doom su dee ne la jóge ci ko góor ko dem nañ ko jigéen ko ñoom dañuy nekk di kër kër yi di kër kër yi di kër kër yi pour am lay jóge ci jigéen ba di nen bay jóge ci jigéen ba ana kan mooy dugg ci moom daañ fa nekk nekk parcours boo xam ne jéggi na dayo ba baa suñu borom dogal benn dugg la doon x dugg muy góor wala y moo dugg muy jigéen su neexee yàlla mu ubbil ñaar mu jur ay cheikh ñett mu jur ñett ba histoire wane na ñu jur juróom ñetti doom loolu ci kattanu yàlla ca loolu nga xam ne mooy spermatozoïde boobu ku ko tegoon fii nga teg fii lu mën mille bëtu doomu aadama mënu ko gis laboratoire donc nga ko mën a gis ay microscope kon yàlla mi la jëlee foofu bind la tey nga jàpp ne nag su ma dee ba jaxasoo suuf yàlla du ma dekkal borom mu ne su yéemu daal seen wax jii ko yéemu mi nga noonu borom boobu subhanahu wa taala nag ne ñu mel nii day al aghlaalu fi anaqihim mooy chaîne yi dafa muur seeni baat loolu danay am ci àdduna te mooy chaîne yu ñu gisul suñu borom mu ne jaal naa في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا yéeféer suñu borom nee na marché na baatam mu tiin long ci kaw ba du gis aw yoon ma kaste kanamam kaste gannaawam amma nag alaxira nag ca la yàlla di indi chaîne dëgg ya malaaka yi chaîne leen gurgur leen jëmale leen fa nga xamee ne mooy sawara ñu sax fa duñ fa génn ba faw yal na yàlla musal ñu ci
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد المعقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار
barakallahu fikum suñu borom mu ni wa yastacdiluunaka bisayiati qabla alxasana ñi ngi lay yàkkamtiloo gi indi lu bon la jiitu lu baax la wa qad xalat min qablihim almusalaat doonte ne romboon na la leen jiitu ci ay misaal wa inna rabbaka la zu maxfiratin linnaasi ala zulmihim donte ne sa borom yàlla borom jéggal la ñeel nit ñi ci seen tooñ yi fa inna rabbaka la shadidul iqab waaye sa borom yàlla it ku tar la ci nu muy mbogale wa yaqulu allazina kafaru yéeféere ñoom ñi ngi naan lawla unzila alayhi ayatu min rabbi ma moom lu teewoon ñu wàcc ci moom kawtiif bu bawoo ca boroomam innama anta munzir yow doo dara lu dul ab waaraatekat xuppaatekat wa li kulli qawmin haad doonte ne bépp xeet am na ku leen di jubal allahu yaalamu ma taxmilu kullu unsa yàlla day xam ne la muy ëmb bépp jigéen wa ma taxiidul arxam ak la nga xam ne dana ko wàññi lii di biiru jigéen ya arxam mooy fa doom bay tege ci biir ba wa wa ma tasdaad ak lépp loo xam ne dana ko yokk ci ëmb ba wa kullu cheyin indahu bi miqdaar ca bépp mbir ca moom day ci ab natt la ko nattale alimul xaybi wa shahaada mooy ki xam lépp luy kumpa mooy ki xam lépp lu feeñ alkabirul mutaal mooy ki màgg ki nga xam ne moo kaweewu ca kaw ay jaamam sawaa'un minkum man asfara man man asfara alqawl yemoo na ci moom kay yelu ay waxam wax ko ca suuf wa man jahara bihi ak kakay biral wax ko ca kaw wa man huwa mustaxfin bi leyl ak ka nga xam ne dafa laqatu ci biir guddi ga wa saaribun bi nahaar ak koo xam ne dana fang ci diggu yoon ba génn ca bëccëg lépp a yem ci moom jalla wa ala mbokk yéeféer yu jëkk yi daawuñu deñ di tontu seeni yonent yow nee nga buñ la gëmul yàlla dañuy mbugal léegi indi mbugalu yàlla bi gëmuñu la tey gëmuñu la ëllëg moom la borom bi di wax naan ñi ngi la yàkkamtiloo lu bon jiitu lu baax li ngeen leen di dig ka ca jiitu woon mooy sunu maam nuux lan la waxoon xeetam jéggalu leen seen borom mu yebal asamaan mu tawal leen mu yokk seen alal yokk seeni doom may leen ay dex su ngeen ko deful yàlla di leen di mbugal de ñu ne ko ñun gëmuñu la indi mbugal bi waaye mbokk li gën a nekk xel mooy dañ koo jéem a gëm rek ndax seetlu ndax lu baax la dina am ba pare waaye indi mbugal bi suñu borom mu ne waa màkk yi loolu lañu wax waaye jiitu woon na leen ay misaal xawmu nuux a ngi huud a ngi saalax nga ne shuayb nga ne luut nga ne ila axiri qad xalat min xabli musulaat waaye dañoo xamul ne sa borom yàlla day ku tar ay ku bëri njéggal la ci ay jaamam waaye it ku tar ay mbugal la te loolu it mbokk la julit war di gannaayoo nga la way sa xol bi fexeel xam na lay tax mu baax mu am ñaari laaf laaf bu jëkk bi mooy laafu ragal yàlla ragal yàlla mooy dox sa digganteeg bañ koo moy laafu ñaareel bi mooy yaakaaral yàlla say bakkaar lu mu bëri bëri sa càggante lu mu bëri bëri yaakaaral jéggal yàlla ak yërmandeem heure boo demee ba yaakaaratoo yàlla xol boobu baaxatul heure boo demee ba naagu ñu dalal sa xel ci ne yow boo dee rek àddina nga jëm comme li xew ci sénégalais yu bëri xol boobu baaxatul suñu borom yàlla nag ne yéeféer yi ñi ngi naan àndulu teewul ñu indi kaawteef bu bawoo ci boromam ndax yonent yàlla indul kaawteef ah kay waaye mooy kaawteef yañu laaj ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam waa màkk laaj nañ ko kaawteef yu bëri soo demee da nga ko fekk suratul isra lan nu'mina laka hatta tafjuru lana min al-ardi yanbu'a aw ila axiri ba indil ko ay kawtef yu dul yu dul jeex borom bi nag subhanahu wa taala ne yow sa wareef yow yonente yàlla bi mooy nga jottali li ma la sant jeex na suñu borom it mu ne nañu xam ne bépp xeet yàlla yónnee na leen ku leen di jubal li kulli qawmin haat ngan la waay mbokk julit xam leen ne ki yàlla mu jëla yónni mooy suñu yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan mooy sunu war a warugar ak moom suñu borom nee na li kulli qawmin haat bépp xeet am na ku leen di guider kon kay dañoo war a topp ci gannaawam jeex na suñu borom mu ne ko wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim lii rek mooy suñu war ak moom kull qawmin haad muy jubal xeet bi yóbbu leen ci gërëmal yàlla moom la yonent bi alei salaam doon wax ni yéen ñëpp àjjana ngeen jëm xanaa lu dul ko bañ kan mooy bañ yu mu yàlla yónni mu ne koo xam ne nii day ñëw na topp samay ndigal kooku moom àjjana la jëm waaye ki lànk mooy ki bañ suñu borom bàyyi loolu delluwaat ak ñun ci wàllu science mu ne xam leen ne yàlla day moo xam bépp jigéen bu muy ëmb lu muy ëmb jigéen ba mooy lan na nga wax janax wala lu ko gën a tuuti ba baa nga yëgg ci ñay ba baa nga yëgg ci baleen lépp suñu borom yàlla mu ne xam naa lu mu ëmb ca mbokk amul luy ëmb lu dul ci ndigalal yàlla nga noonu doomu aadama boo xoolee processus ba muy amee la chaque année doo sikk sàkk ne lii amewul lu dul ci ndigalu yàlla suñu borom nag mu ne xam naa ko xam naa la nga xam ne dana ko wàññi la nga xamee ne mooy biiru jigéen ya nit lañu duñ mën a doon ci ay xaraki nagak lu mën a doon imma wàññi googee am nañu koy firee mooy temps ba ca mooy masalan bu dee doomu aadama lu ëpp ci jigéen ñi juróom-ñeenti weer la ñuy ëmb waaye su neexee borom bi juróom benn weer jigéen am ci doom juróom ñaar jigéen am ci doom wa ma tasdaad su ko neexee it yokk ëmb bi ba ëmb bi passé loolu doonte ne ni médecins yi bari dañuy jàpp ne ëmb mënul passé def ay un an sinon xale bi day dee waaye ñoom dañuy wax ci seen niveau xam-xam fàtte kàttanu yàlla jalla wa ala am déet ñu ngi noonu am na ko ñuy wax imam dahaak ci mufassiruna yi la bokk borom xam-xam yi bi muy yaayam deux ans lu ko ëmb bi muy judd bëñam yépp a sax gis ngeen imaamu malik rahimahullah nee na am na ay dëkkandoo ci madina am na ñetti doom doom bu nekk ñeenti at la ko soxna si ëmb loolu ci ka kàttanu yàlla la mooy def lu ko neex ay wama tazar borom boobu nag subhanahu wa taala kon loolu la wax mu ne amul lu mën a doon ci kaw suuf lu dul mooy ka ko nattale kullu shay'in indahu bi miqdar loolu ci kattanam la jalla wa ala nga gis lu yéeme ca dama am sama benn jigéen mu woo ma ne ma ah dama bëggoon sa jarbaat bi day dafa tuuti lool te médecin bi nee na ay cheikh la ëmb ma ne ko moom jalax ku ëpp yaa ngi dégg moom jalax ku ëpp mbokk suñu borom ci xikmaam gis nga dañ naan dafa rëy na ñey di loolu la ñuy wax de daa rëy na ñey mbokk ñey benn doom lay jur gis nga benn doom ba bala koo jur day xaw a dee accouchement ñey day xaw a dee pour jur benn doom ñu ne daa tuuti la janax janax day jur juróom benni doom sans problème am déet xam nga bu doon doomu aadama kay dañ naan ku tuuti kii la ñuy jox benn ñey la comme da nga rëy ñu jox la sans doom yaa ngi dégg mi ngi noonu fay la alhamdulilah soxna sa ku tuuti tuuti mais am na ñaari doomam sans problème kon yàlla lu ne moo koy nattale loolu it mbokk moo tax ba suñu borom lépp moo ko nattale doomu aadama moo la équilibré def ci yow say organe sa yépp yoo xam ne nii bu amoon ak jiw rek musiba dal la ngelaw bi ñuy noyyi oxygène bi moo ko équilibré dose yi ci nekk bu yokk woon rek suñu poumon yi éclaté bu wàññeeku woon ñu sëfafe lépp lu mën a doon noonu la nga dem ci àll bi tey da ngay gis ne bàyyuma yi nga xam ne amuñu benn lor dañuy fees kiiwal yaa ngi fees nag yi àll yaa ngi fees nga leen di gis ñuy immigré par million mais bàyyuma yu danger yi gaynde yi da ngay gis benn àll bu amee lu mat vingt gaynde bëri na gaa yi mës ngeen gis ñun gaynde yu àdd déedéet ñaata ngeen gis nag di lu jege un million de buffle yuy transité di dem fu kenn xamul aigle yu mag yi faddaate da ngay gis très rare la ñuy nekk ci àll mat fa cinq wala dix amma bu dee picc yi amul lor c'est des vagues de millions kon yàlla noonu la def mooy lu nekk rek moo ko nattale kullu shay'in indahu bi miqdar jalla wa ala loolu it yow doomu aadama nga gëm sa wërsëgit yàlla la ko nattal doomu aadama boo xëyoon di toj sa bopp suba ba ngoon it doo am lu dul yàlla tudd ci yow firiwul nag dama war a frenkulaayu yi déedéet jëkk sàkku ji wërsëg jaamu yàlla la yàlla la ko sant da ngay sabab lu ji waaye nag nga gëm ne yàllay may sa morom mii la raw ci wërsëg du ne laa gën a intelligent wala da laa ëpp pexe déedéet yàllaa ko dogal mi ngi noonu kii nga xam ne yaa ko raw bul jàpp ne daa yaa kus daa doy ji déedéet yàllaa ko dogal mooy daal defal sa devoir tega nag nga gëm ne kulli shay indihu bi miqdar sa bakkan bii noonu la nekkal professeur des professeurs des médecins mënoo fexe ba dund gi yàlla tëral ne fii lay yem muy fa la yem jeex na jeex na kullu shay indihu bi miqdar loolu la ab jullit war a gëm ci boromam jalla wa ala borom boobu nag nee na moo xam lépp loo xam ni kumpa la moo xam lépp loo xam ni lu feeñ la yàlla laa yaxfa alayhi shay'un fi l ardi wala fi sama lépp loo nëbb jaay mi yàlla it xamal ne bu ko sa borom moom nëbbuwul ci moom yàlla moom mooy ko màggi kii moom ngay bàkk heure booy julli allahu akbar allahu akbar moom rek it moo yeyoo almutaal ki kawewu ci kawi jaamam ci bëggul kenn koy kawe kawelu ñëpp dañoo war a toroxlu ci kanamam jalla wa ala moom rek muy al ali al kabir al mutaal al mutakabbir kenn rek la jalla wa ala mu ne nag ay yéen doomu aadama yi xam leen ne yem na ci yéen koo xam ne dafay wax ci suuf ak kuy wax ci kaw mbokk loolu yéefiri arab yi seenu ndaf moo leen ci yóbbu woon ñoom dañ daan bu ñu mosaan bëgg a wax musiba ku nekk day ñëw sa nafa morom dee ko ndax ñene bu ñu waxee ci kaw yàlla da koy dégg yaa ngi dégg loolu moom ak ndaf mënu koo passé amma yow jullit tey boo doon julli yaa ngi nii masalan yaa ngi julli ah timis sa ñaari ràkk yi da ngay tari ci kaw de boo rukkoo nga wax ci suuf boo su jotee nga wax ci suuf mais da ngay gëm ne li ma wax ci kaw yàlla dégg na ko li ma wax ci suuf yàlla dégg na ko lépp a yem ci suñ borom borom boobu it nee na waa ji nekk ci néegam sangoo mbàjjam ci lëndëm gi di def loo xam ne soxnaam mën naam yëgu ko ay dëkkanam kenn yëgu ko borom bi nee na kooku mokki bàyyi ba digg bëccëg ñépp nekk ci grand place mu génn ci këram di dem ñépp di ko séen nee na ñoom ñaar laa yemale ay kon dara nëbbuwul ci borom bi jalla wa ala lool it di la wax yow doomu aadama soo demee ba wéet ba yëg ne kenn yëgatu la ah des na nag benn bunt boo xam ne moom mën a fexe ba tëj ko man ngaa tëj kër gi tëj salon bi tëj waaye bunt boo dul tëj mooy sa digganteeg sa borom lépp loo def mi ngi jàkkaarloo ak yow mi ngi noonu jalla wa ala
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واق هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الله بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد الحال jazakallahu xayra suñu borom mu ne jaam boobu day lahu muaqibaat ñeel na ko ñuy wuutante di relevante min bayni yadayhi wa min xalfi ca kanamam ak ca gannaawam yaxfaduunahu min amrillah ñu koy wattu ci ndigali yàlla inna allaha la yughayyiru ma bi qawm sa borom yàlla du soppi mukk lu nekk ci aw nit xatta yughayyiru ma bi anfusihim lu dul ne dañoo soppi la nekk ci seen bakkan wa ida arada allahu bi qawmin suu'a su yàlla nammee ci aw xeet lu bon lum leen di nar a def fala maradda lahu amul lenn loo xam ne nii dana ko mën a delloo wa ma lahum min dunihi min waal ci du leen ñeel gannaaw yàlla ku leen di féetewoo huwa alladi yurikum albarqa xawfan wa tamaa mooy ki leen di won melax ga ngeen ànd ak tiitaange ak xemmem xemmem la ca jóge ci taw wa yunshiu sahaba thiqal mooy sos nuage ya muy niir ya mu nekk lu gis gan wa yusabbihu radu bi xamdi ma ngay sabbal dënu ga ci ak cantam wal malaikatu min xiifati malaaka yaa ngay sabbal ci ragal ko wa yursilu sawaiq mooy yunni la nga xam ne nii mooy safara bi jóge ko asamaan di tonnerre boobu nga xam ne mooy foudre bi lakkaate wala fii di ko tudde kaddum nawet fa yusibu biha man yasha mu daal di cay laalale ku ko ca neex wahum yujadiluuna fillah mu daa di ca ñoom ñu wëlbati ko nag di dàggasante ci mbiri yàlla wa huwa shadidul mihaal ca moo ne day ku tar la ci la nga xam ne mooy ay mbugalam jàll wa ala mi ngi noonu mbokk suñu borom nee na amul benn jaam bu tëju ci biir néegam ak ki jaar ci yoon bi di dem lu dul am na ñoo xam ne ñoo koy wattu ci kanamam ak ci gannaawam sunu borom yàlla ngir bañ doomu aadama jàpp ne malaaka yi ma yàlla booleel xanaa ñoom duñu sonn wala duñu nangam borom bi ne déedéet dañuy relevanté te ji boo demoon fu mel ne présidence wala nga dem feneen ci buntu camp armée yi dañuy relevanté bu ñuy taxawee gannaaw ba dem ñuy taxaw suñ borom it noonu la ñuy yónnee ay malaaka a rasul sallallahu alayhi wasallam xamal ñu ni relief boobu dana am deux fois par jour benn bi fajar lay doon ba ci des tàkkusaan lay doon malaaka yooyu ñooy ànd ak doomu aadama di ko wattu daañu wattu liy jóge ci moom ci ay jëfam dara du ci rëcc ñu koy enregistré mu koy xaar ëllëg yowmal qiyaama waaye dañ ko wattu dara du ko dal lu dul neex yàlla mbokk julit da ngay gëm ni lan yusibana illa ma kataba allahu lana di neex yàlla rek moo lay dal su ba ne nga gis ay accident yu extraordinaire camion ba fël na njaga njaay ba moo tasaaroo pièce par pièce trente personnes moo ci nekkoon vingt cinq dee nañ sur le coup am trois blessés am ñaari caamin yu taxaw moom dara daru leen daa yàgg leen ko déggee waaye avion jóge ci kaw explosé daanu suñu borom yàlla am ñoom ci musal tremblement de terre immeuble yi jóge ci kaw rajo xoo ñuy nekk di fouiller di fouiller dix jours am ku ñu génne quinze jours am ku ñu génne mbokk doomu aadama bi lu yàlla tudd ci yow rek moo lay dal lu yàlla tuddul ci yow mënoo fexe ba mucc ci da ngay toog ci tali benn oto dem brrr dem bay bëgg yem benn waay kenn du xam lu tax yenu wu ko mbokk yàlla malaaka yaa suñu borom yàlla moo boole nit ki ak i malaaka dara du la dal lu dul neex yàlla amaa nag li neex yàlla ñëwee moom it àdduna yëpp buñ daje woon du tee mu dal la gis ngeen borom bi subhanahu wa taala mu ne kon li jóge ci yàlla fala maradda la loolu moom dara mënu koo téye te kenn mënu laa féetewoo gannaaw yàlla loolu mbokk mi ngi noonu borom boobu mbokk commencé woon ak ñun ci saar bii di suratu raad mu ne nag moo leen di woon melax ah mu ne waaw naam jazakallahu xeyran waaw mu ne inna allaha la yuxayiru ma bi qawmin xatta yuxayiru ma bi anfusihim suñu borom yàlla day xeet bu mu mën a doon lañu nekk yàlla du ko soppi xanaa lu dul ñoo soppeeku xeet boo xam ne dañoo nekk ci xéewal nekk ci yiw yàlla du ko soppi lu dul ne dañoo sax ci kéeféer aku kàccoorte ca yonent yàlla waxoon nañ ko Huud ak Saalih waxoon nañ seen xeet inni araakum bi xayr yéen a ngi ci yiw Shuayb bu wax na ko ngal la waay léegi nag kaawteef waaraate jógal ci seen borom ba xeet ba lanke la yàlla soppi xéewal ga kon na doon kër gi la réew mi la yàlla du fi indi naataange mukk xëy xëy dindi naataange ba lu dul waa réew ma ñoo soppi doxalin jaar fu neexul yàlla waaye contraire ba amul ñenn nit ñu nekk ci jafe-jafe waa kër ga waa quartier ba waa réew ma jafe-jafe yooyu di teggeeku lu dul dañuy tuub dellu ci yàlla looloo tax ci lislaam bu ñu toogee ay jamono taw amul ñu daal di woote tuub leen génne leen sarax ñu dem toroxlu ci kanamu yàlla ngir yàlla changé loolu loolu it yow doomu aadama en tant qu'individu nga lu way bàyyil xel loolu sa borom yàlla may na la wér gi yaram may la ay xéewal lay sàmm xéewal googee mooy nga fexe sax ci li neex yàlla suñu borom mu yàlla mu ne la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid fii gii ni ngi may sant danaa sàmm seeni xéewal di ko yokk fii gii ni ngi may may nag sama mbugal lu tar la yow mi nekk ci jafe-jafe lan mooy solution tuubal toroxlul dellul ci yàlla del rafetal sa diine moytul bàkkaar del ñaan loolu doo ci sax lu dul suñu borom yàlla wëlbatil la jafe-jafe yooyu defal la ko la nga xamee ni nii moom mooy ay xéewal te yàlla moo xam fan la koy jaare mbokku yàlla la muy changé ci nit moo xam fu mu koy jaare am na benn góor goo xam ni soriwul wallahi jàkka ji nettali na ma nee na ma daanañ jóge fa kokki nekk daaray kokki di dox ak seen tànk ba fa mbos nekk di jeexaati gerte buñ ko jaayee dundal seenum njaboot njaboot googu mu mu ma doon nettali tey ci ndakaaru gi liñ fi am ci ay étage daani ko xawma sax nuñ toll xoolul mbokk ni yàlla changé situation bi ci benn génération baay bi nii leen doole woon ñàkkoon amul dara yàlla wul du xoolal doom yi ñu am tey sama góor gi care ñu ngi may nettali benn góor goo xam ni seen côté dëkk bi sa tabaski daa jot fekk dem na fu ne dóor na fa boppam amul dara bu suba la tabaski muy nibbisi ci kër gi xoolul xamul nu muy def mu jàdd ci tool yi rek pendre boppam ndax rus naa ñëw ci kër gi ci indul xar bi ma koy nekk ci lii nee na ma jamono ji tey doomam bi nekk Dakar ñëpp ay millionnaire lañu kon yàlla yàlla yul ba ci mbir yi su ko defee nag yow julit bul ñàkk yaakaar ci yàlla quel que soit jafe-jafe yoo nekkee rafetal njort toroxlu xool li nga nekk ci lu neexul yàlla nga jéem koo changé incha allah suñu borom yàlla moom mooy borom kattan borom boobu kon gannaaw boobu ñu waxee loolu mu ne nag moo ñuy woon melax gaa yi melax gis ngeen ni muy mel bu dee ràyyi melax ñépp tiit ca goneg dakaaru maa ngi lay seedal xamoo luy melax melax da nga koy laaj ñoom Serigne Ndiaye ñii ak ñu mel na ñoom ak ñu mel na man nga xam ne nekkoon nañ ci ay gox yoo xam ne léeg-léeg ah courant amul foofu jamonoy sattumbar mu xiiñ ba ñu di lëndëm melax yi bu ne ray effet bi muy am bokkul la ki nekk Dakar nga xam ne lumière yi dafa nekk partout melax yooyu kon da ngay gis ba ko nit ñi gisee ànd ak tiitaange ndax melax mooy indi foudre li muy nar a wax ci kanam mooy li dal ci nit ñi loolu buñ koy gisee tiit waaye nag ñu am xemmemte bokk na sunu mag yi wala fi ñu wax naan foo gis melax rek ma ngay taw te melax yooyu yonent bi da ko doon ñaan ci ay hadis lu tax gannaaw bu lañ mujj gis nekkate melax yi dafa am effet ci suuf bi nawet bu lu ëpp ay melax moo la ëpp suuf bi la muy nar a meññi jamono boobi loolu suñu borom bindul dara ci hasard mooy indi melax yi ngeen di ko xool di kontaan waaye di ko xool di ragal baadu la fay jóge di dal seen kaw suñu borom mu ne mooy sos nuage yi ñu ànd bis gann ca na am mbokk julit la nga xamee ne mooy niir yi xam nañu jant bi bu tàngalee océan yi léegi ndox mi daal di yéeg kaw asamaan suñu borom dajale ko sos ko mu nekk xiin mu wàcc ko mu diis gann diis gann boobi la la koy won rek léegi la nga dégg météo yu ne ah dëkk sàngam day taw na cent millimètres loolu li muy firi mooy chaque mètre carré cent litres d'eau tuuru na fa li nga noonu un un millimètre mooy un litre d'eau bu tuuru ci un mètre carré waaw léegi nag gars yi da ngay xool chaque mètre carré téeméeri litre ndox tuuru fa léegi un kilomètre carré dix kilomètres carré léegi nag bu ñu nee Dakar ba Saint-Louis lépp dafa tooy loolu mbokk ñaata millions de tonnes la xiin yooyu wàcc ci kaw suuf kon suñu borom bu ne ñu ngi indi nuage yu dis gànn wallaay lu mu wax dëgg la waaye nag ci kattanu yàlla bu doon biir saay boobu daa xëyoon na ko bëmbëx suñu kaw ñoo suñuy immeuble ak suñu yëpp ànd mboxoñoo am déet waaye day sant yërmaa dem dafa ñu koy sottil car mi ngi noonu jàll wa ala borom boobu kon mu ne ah dënu gi ngay dégg mooy dëng-dëng gi ngay dégg ci kaw asamaan loolu mooy raad nee na mi ngi sabbal yàlla mooy sabbal kattanu yàlla mbokk dëng-dëng boobu du président moo ko ordonné du États-Unis du Russie kattanu yàlla la nga xam ni jamonoy nawet léeg-léeg mu dégg dënu yoo xam ne yow góor sax léeg-léeg nga tiit waxumaa gone yu ndaw yi ma ngay sabbal ak cantam looloo tax foo ko déggee waxal subhanallah wa bihamdihi jamonoy nawet foo dégg dëng-dëng ci ko asamaan waxal subhanallah wa bihamdihi ca la gën a gàtt wante ne yonent bi jàngaloon nañ ci ak ñaan subhana alladi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min xiifati waaye daal ca la gën a gàtt waxa rek subhanallah wa bihamdihi maa nga tudd sell ak yàlla ànd ak di ko sant mu ne malaaka yi ñi ngi koy sabbaal ànd ak ak ragal ko parce que malaaka yi dañu ragal seen boroom wa hum min xashyatihi mushfiqun dañoo ragal seen boroom jalla wa ala ragal mooy yàlla donte na ñoom duñ mooy yàlla mais ragal nañ mooy yàlla mi ngi noonu borom boobu nag nee na mooy yónni safara bu jógee kaw asamaan mooy foudre bi di ko dóor ci ku ko neex ci ay jaamam mi ngi noonu bokkoon na li ma mujjoon a dégg ci France gi ñu ne chaque année dana fa rey téeméeri nit am na fa benn hôpital spécialisé pour intervenir ci ñooñu foudre bi di dal nga xam ne dañoo may hélicoptère yëpp bu ñu ne dal na hélicoptère yi daw jëli ila axiri mais teewul dana fa rey nombre boobu waaye mbokk li suñu borom wax suñu mbokk Bilal Thiam yal na yàlla sàmm ko papaam nettali na ma seen dëkk benn couple boo xam ni jëkkër ji ak jabar ji ngi tëdd ak seen benn doom bi foudre bi ñëwee dóor ci biir néeg bi dafa rey baay bi rey yaay ji liir bi moom mu bàyyi ko noonu kon la yàlla wax ni moo koy dóor ci ku ko def ci ay jaamam loolu mi ngi noonu su ko defee loolu itamit doon loo xam ne kattanug yàlla la bu doomu aadama di war a ragal ca mooy doomu aadama yi foo mën a nekk ci kaw suuf su ko neexee fekkee la fi ak i mbiram mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne li mu jàngale lii lépp depuis bay wax ak ñun asamaan ba mu yëkkati jaar ak ñun fi mu jaarale mun a teewul nit ñi ñi ngi nekk di dagg sante ci mbiri yàlla ay dagg sante ci ñàkk wiital seen borom waaye xamuñu ne yàlla mooy ki tar mbugal yal na yàlla musal ñu ci mbugalam boole ñu ci jaamam yi ko gëm buñ ko bokkaale dara mu jagleel ñu teranga adduna ak teranga alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain mu ne at waxtu mu war a génne asaka dafa feebaroon waaw léegi nag waaw ah waaw léegi dafa feebaroon da koy génne rek da koy génne rek ca moo xam ne bu déwénee it waxtu woowu la ko war a génne masalan weeru koor la war a génne azaka nee na feebar na xanaa daa fàtte waaye feebar teewul génne azaka azaka moom da ngay wax ñu génneel la ko almuhim bu dee feebar na ba mu waaw éva éva da ko éventaire ala kulli xaal bu ko éventaire deux mois après it dafa war a xam ne bu génnee zakat bi suñ ci tegaatee weer wam ko waroon a génne jotaat da ko war a génne waat loolu daal mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw ala kulli xaal waaw mbokk yi waaw bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah dama jàngal xuraan nekk ci position boo xam ne mënu ma sujud sujuutu alquran du farata sujuutu alquran du farata Omar ibn al-Khattab xutba na di di tari alquran àgg ci ci aayu sujuut wàcc sujuut di beneen bis muy xut xutba di jàng alquran war a jàng aayu sujuut gis gaa yi defar waat mu daal dina leen hey sujuut bi yàlla farata la ko ci ñun ku ko def am nga tuyaaba ku ko deful dara ñeedu la ci keroog daa continuer sujootul kon boo nekkee ci position boo xamee ni nii doo mën a wàcc sujoot su boobaa yëpp da ngay gis ne dara nekkul ci yow am na it ixtilaaf yoon ci borom xam-xam ndax kii nga xam ne dafa julli fajar ba pare jàngal quran ndax am na droit sujoot te jant bi fenkagul lu bari ci borom xam-xam yi dañ koo bañ lu mel ne mazhab Malik noonu la ñuy bañee sujud gannaaw takkusaan am na yeneen borom xam-xam yu jàpp ne maadaama dafa am sabab mënees na koo def waaye almuhim daal lañ lay xamal mooy sujud ba def ko tuyaaba la ñàkk koo def benn bàkkaar nekku ca wallahu subhanahu wa taala aalam naam kon xam naa mbokk ñu doyloo loolu rek wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain